di nuyu département bi yëpp avant may nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw mooy la famille Pastef ñu may ma d'abord ma nuyu la famille biologique parce que avant ñuy wax département bi dañuy wax d'abord commune de Yeumbeul fi nga xam ne fii la ñu fii la ñu màggee et fii la ñu tiitaroo ñu ñëw tey am mbégte vraiment au aux larmes parce que dañu ñëw fekk fi ay sunu ay yaay yoo xam ne bi ñu nekk xale yu ndaw ñoom ñoo ñu doon tàggat ñëw fekk également des amis d'enfance yi nga xam ne fii présidium bi nekk tey fii la ñu jàngee football. man je suis né dans une maison boo xam ne matul à 300 mètres si c'est-à-dire que même bu fekkee ni dañ ma xam ci diaspora bi avant ñuy wax diaspora bi fii lañu fekkee baax muy nekk nag fierte bu mag a mag a mag a mag ci ñun même bu ñu nekkee France bu ñu waxee fu ngeen jógee à chaque fois dañuy am plaisir pour wax ñun yëmbal la ñu jógee pourquoi ñuy wax loolu parce banlieue bi de manière générale dafa nekk foo xam ne dañu leen mës a fàtte ci lépp banlieue bi mësul am baat ci li nga xam ne moom la ñuy wax les politiques publiques mais aujourd'hui banlieue bi mën nañu fier parce que seen doom bu jógee ci banlieue bi tey aujourd'hui il siège au conseil des ministres bu jógee ci banlieue bi tey aujourd'hui occupe des hautes fonctions de la République sénégalaise pourquoi may wax loolu damay wax loolu ndax agenda de transformation bi nga xam ne moom le président la République bëgg a teg ñu koy woowee vision deux mille cinquante muy vingt cinq ans ci kanam dañu bëgg xale yi ndaw yi nekk ci ñun diñu ñu seetaan demain président la République di Sénégal jóge fii ci xale yi ndaw yi. demande d'autres ministres de la république jóge fii ci xale yu ndaw yi lu mën nekk la loolu nag lu muy waral mooy il faut que sunu parents yi tette xale yi il faut que ñu gunge leen parce que même bu fekkee ne am na aujourd'hui ay benn benn yu jóge ci banlieue bi di occuper de hautes fonctions la République di Sénégal nous avons la possibilité parce que banlieue bi ay jàmbaar lañu moo tax ñuy ñaaxaat sunu yaay yi nañu. jàngal xale yi nañ leen dugal école wala ñu dugal leen arab nañu jàng rek parce que li nga xam ne moom la président la république bëgg a def ci vingt cinq ans du ñëw defu ko pour ñun defuñu ko pour suñu yaay defuñu ko pour ñu ñu mag ñi tax ñu def ko mooy xale yi ndaw yi nii loolu moo tax tey ñu ñëw fii pour amuñu prétention nekk d'exemple wala servir de de référent ak qui soit mais dafa am solo dafa am solo ñuy ñëw ci banlieue bi di partage ak ñoom li nga xam ne mooy sunu expérience dafa am solo à chaque fois ñu ñëwaat ci banlieue bi di leen wax leneen ñun ci banlieue bi yëmbal la ñu juddoo fii la ñu màggee kenn per kenn xalaatul woon ne dinañ mën a yegg yenn fonction yi mais ñu wan leen ni c'est possible possible boobu noonu nag mooy il faut que ñu jàngal xale yi il faut que ñu yar xale yi. bu ma jógee ci loolu ma nuyoo sama famille biologique ba pare mu yëmbal bii nii parce que fii wàll yaanu fi dañ fi bokk su ma jógee fii ba caaroy kaw wala fii sama ginnaaw ba Fass Mbao kër bu ñu fi dugg mën nañ fa fanaan wala mën nañ fa lekk parce que on est chez nous et nous sommes encore une fois fiers d'être là fiers d'être Yeumbelois fiers de représenter Yeumbeul dans la diaspora fi nga xam ne bi Pastef amagul ñun ak suñu ay moroom ñoo taxawal teg yambal teg teg Pastef loo xam ne matuñu fukki nit ba tax tey bu ñu waxee Pastef ci jaspoora bi doo wax diaspora te tegoo Pastef France meeting bi nag lu ko waral tey avant ma ci dugg ma remercier ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw mooy ma famille politique di jiital nuyoo bi euh, Seydou nga xam ne moom mooy le coordonnateur Pape Amary mii tey nekk nekk maître de cérémonie ñoo nekkoon benn classe bu ñu doon nekk bu ñu nekkee xale. nuyu Marie Ange mi nga xam ne tey mooy suñu honorable député mu def liggéey bu am solo ci département bi boo xam ne fépp foo dem ci Pastef ñu ngi koy show parce que lan elle fait du don de soi don de soi mooy lan mooy nga liggéey fàtte sa bopp ba lu la ci fekk fekk la ci nuyu mon frère derrière Adama Sarr muy meeru Kër Massar def liggéey aussi bu am solo parce que mënoon nañ ne ñoom parti politique lañu wala mouvement lañu dañu demal seen bopp mais heure bu Pastef gestoo gis leen seen côté ñuy ñuy liggéey diversité Pastef nag kenn du ko werante parce que heureusement que Mass jox na parole ki nga xam ne mooy Cheikh Sadibou juuf dafa am solo li may wax nii Pastef nekkul moomeelu kenn lu tax ñu def tey pour def caravane bi nga xam ne mooy la caravane de l'unité ak meeting rassemblement mooy dafa fekk loo xam ne lu ñëpp bokk la ñëpp jot si loolu dafa bokk ci slogan wu Pastef loolu nag warul nekk rek ci ay mots il faut ñu koy matérialiser ci jëf yi nga xam ne moom la ñuy teg c'est important loolu moo tax ñu jël initiative dajale la l'ensemble des élus ak l' ensemble ñi nga xam ne dañu war a représenter PASTEF au sein de l'hémicycle ñu invité leen à ce que aujourd'hui ñu def caravane pour wan département bi ne benn lañu wan département bi ne nous sommes unis wan département bi ne ne dañuy dem à l'assaut de l'hémicycle pour li nga xam ne moom mooy projet PASTEF ñu mën ko matérialiser par acte yi nga xam ne moom la ñuy teg parce que maa ngi koy wax sànq. bokk nañu ci ñi nga xam ne mën naa wax ne les premières cellules de PASTEF ñu teg ko fii ci yëmbal li may wax nii c'était en 2016 kenn xamul woon PASTEF bu fekkoon ne dañuy jug pour wax waxuy moomeel amul ku ñu gën a légitime pour wax ne ce département la nous avons notre part à y jouer mais encore une fois loolu amul am importance PASTEF amul moomeel PASTEF président nu mu koy waxee tout le temps. dafa bëgg une masse boo xam ne moo koy accompagner c'est vrai organisation boo gis di nga gis ñoo xam ne ñoo nekk ci kaw mais c'est pas ñi nekk ci kaw ñoom ñoo gën a important ñi gën a important mooy sunu yaay yi nga xam ne toog nañ fii depuis 15 heures di xaar ñu ñëw pour mën a waxtaan ak ñoom ñi important mooy cette jeunesse JPS bi nga xam ne dañu doxee Kër Massar ba yëmbal te kenn fayu leen li important mooy ñi nga xam ne ñoo taxaw fii kenn joxu leen dara. ñu ñëw à chaque fois pour accompagner le projet donc bu ñu xalaatee loolu il faut qu'on s'oublie nañu fàtte suñu bopp sunu bopp yi amul solo bu fekkoon ne loolu la man mii di wax ak yéen je ne serai pas ministre la république bu fekkee ne ku nekk da ngay xool li nga xam ne moom la la dëkk bi di indil wala moom ngay gagné te je sais bari naa ci moroom ñoo xam ne dañu bàyyi lu bari pour ñëw jàpp ne Sénégal. dañu ne am ay politique yoo xam ne dañu ko nekk di ko am depuis 1960 depuis mille 1960 politique yooyu noonu defuñu résultat surtout ci banlieue bi nga xam ne moom la ñu nekk une fois ñu am nit ñoo xam ne dëggu nañu tay la dañ seen bopp parce que c'est des gens yoo xam ne dañu def seen preuve avant ñuy wax dañu def ngeen gis nit yoo xam ne dañu jëf ngeen gis ak sacrifice boo xam ne. kenn xamul nu mu toll lu président sun ko def avant mu leen di woote pour ñu defar réew mi donc kooku bu leen waxee war ngeen gëm ne kii fi mu leen bëgg a yóbbu fu am solo loolu moo tax on n'a pas le droit à l'échec comme ni mu koy waxee nous avons pas le droit d'échouer bu ñu bañee échouer nag mooy nous sommes obligés main dans la main ku nekk jàpp sa morom nga dem ci li nga xam ne moom mooy li nga xam ne contrat bi ñu signé ak les ak les ak les sénégal parce que dama koy faral di wax souvent le contrat que nous avons signé avec les Sénégalais c'était pas seulement ñu fal président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko nekk premier ministre am loolu du contrat bi contrat bi ñu jim bi ñu signé Sénégalais yi mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la Sénégalais yi am jafe-jafe yi Sénégalais di dundu depuis 1960 mu mën a nekk loo xam ne lu ñu fàtte la contrat boobu la ñu signé est-ce que contra boobu yegg si nañ ci wala yegg seeguñ ci donc on vient de commencer le combat ne vient que de commencer luñ ci mënti am des ministres des députés et cetera ko yi nga xam ne dañ leen fal dinañ représenter dignement le Sénégal demain au niveau de l'Assemblée nationale mais il faut que la finalité mooy jeunes yi nekk fii nga xam ne ñi ngi jël gaal gi ñu bañ a di ko jël finalité bi mooy ñu industrialiser ce pays ba nga xam ne jeune bu bëgg a am liggéey di nga am liggéey ba pare am un salaire décent boo xam ne di nga mën a toppatoo say waajur mënatoo nan yaa ngi jël gaal wala yaa ngi jël sax avion ne dem yaa ngi jàngi Europe parce que am nañ les capacités pour mën a am infrastructure yu doy am nañu richesse fii bu doy ba jeune bu nekk war nga mën a avant que ñuy transformation bi ñuy indi jeune bu nekk war nga mën a am salaire di ci dundal sa bopp di ci dundal sa njaboot et loolu lu mën a nekk la. maintenant pour ñëw li nga xam ne ci la ñu jëm dafa important maa ngi wax sànq ne le président la la le président de de de PASTEF muy Ousmane Sonko à chaque fois dafay wax ak ñun mais duñ ko dégg cheikh bi ñëwoon fii sànq exemple la ci mu koo xam ne dañu ko inscrit ci liste nationale est-ce que mës ngeen gis parti politique boo xam ne dafay investir par dizaine parce que du cheikh kese. ñu mel ne Cheikh wala ñoo xam ne dañu vivre aujourd'hui avec un handicap jege nañu fukk ci biir list bi parce que dañu mës a am politique boo xam ne dafay permettre ñenn ñuy avancé ñuy bedd ñenn ñi te tey dina leen wax benn secret xam naa du ko neex li may waaj wax nii Cheikh Sadibou Diouf bu taxoon fii di wax ak yéen yàlla daf ko bind ay cëram muuru mësul gis et pourtant il a été à jàng na alxuraan jàng na tubaab aujourd'hui c'est un grand juriste à Paris man mii di wax ak yéen avant may nekk ministre discours bu ma mës liir moom moo ko bind te yàlla xam na ne man neexuma bindal discours samay collaborateur xam ne lu may wax buñ ma bindalee discours dinaa ci rëdd effacé effacé ba liste discours bi des du bari mais kii nga xam ne mësul gis mësuma bindal discours ba ma wàññi ci virgule nii la juddoo asawuma la nag sunu doom yi sunu sunu jarbaat yi nga xam ne am nañ toutes les capacités amuñu excuse c'est pas parce que ci banlieue bi laa juddoo que dañuy wax ne dañuy dem ak handicap même bu fekkee ñeneen yi noonu la ñuy xoolee ñun dañu war a bañ dañu war a refuser ñu ñuy xoolee bët ñoo xam ne dañu ndóol wax naa leen ko fii laa juddoo man fii laa doon bële sama papa mosul nekk ministre wala député wala ko am xaalis. mais dañu ñafe ba institution yu gën a mag ci àdduna bi dem nañ fa di fa liggéey te foo fa dem laaj leen di leen wax résultat yi ñu fa bàyyi c'est-à-dire que doomu Yëmbal doomu Kër Massar doomu Thiaroye doomu Malika tout le département et partout au Sénégal même dans les régions les plus reculées am nañu possibilité pour am lu raw li nga xam ne am nañ ko walla def lu raw li nga xam ne def nañ ko loolu bi koy matérialiser rek mooy ñu gëm suñu bopp que les gens n'arrêtent de nous mettre dans des cases ñu yaakaar ne ñun dañu naître avec un handicap l'exemple de Cheikh bi ma joxe fii tey je pense que war na doy ñëpp ba suñu yaay bu ñu jógee fii tey nañu tàggat seen doom yi ñu jàng dafa am solo parce que agenda de transformation bi nga xam ne moom la président bëgg a yóbbu encore une fois amul doomu ministre amul doomu député amul doomu président ñëpp a war a nekk ci biir. dafay toog nag bu boobaa nga am ay aptitude à pouvoir gérer quelque chose c'est-à-dire nga jàng alxuraan wala nga jàng tubaab wala nga am une formation qualifiée boo xam ne dina la permettre bu ñiy tabax Sénégal suba nga mën ci bokk président Ousmane Sonko à chaque fois daf leen wax ne leen man je compte sur la jeunesse c'est-à-dire que na am masse critique bu ma gungee suy wax masse critique nag masse boobu moo tax c'est-à-dire xale yi nga xam ne am nañ deux ans vingt cinq ans ils auront vingt sept et 27 ans dans un pays on mën nañu prétendre être président de la république wala mën nañu prétendre être ministre de la république parce que dëkk yi nga xam ne dañu développé loolu léegi moom moom fa am donc nañu bàyyi xel ci loolu nous nous sommes là pour vous accompagner jamais duñu ñëw fii di leen distribuer ay xartum wala ñu leen jox ay t-shirt wala ñu leen jox xaalis ngeen politique bés bu ma ñëwee fii jox leen xaalis ne leen politique leen mooy échoué nañu mooy sàcc naa xaalis ci Sénégal jox leen ke loolu duñ ko mës a def c'est-à-dire que ñun ñëpp ñun ñëpp ñun ñooy ànd changer Sénégal c'est important donc nañu mobiliser wu encore une fois mariage ce département la nous avons une lourde responsabilité muy bépp koo xam ne da ngay woowee sa bokk responsable am nga responsabilité pour que ce département la soit uni encore une fois ku ci nekk mënoon nga demal sa bopp ne yëf yi man maa ko moom wala man sama quartier yëmbal fii su ma jógee ne fii day meeting keneen du fi dugg mais c'est pas important parce que la finalité encore une c'est pour le peuple ñun ñoo wax don de soi la ñu woote ñun ñoo wax ne le bien commun la ñu woote donc le bien commun nag encore une fois amul président amul secrétaire amul coordonnateur c'est l'affaire de tout le monde moo tax nañu góor góorgóorlu ci loolu loolu ma ngi ciy woo tout le département di ci woowee ñi nga xam ne ay responsable lañ ak ñi nekkul responsable ñu liggéey pour que les résultat yu ñu am parce que au-delà des personnes yi nga xam ne dañu leen war élire man dama gis ci département bi loo xam ne neexuma parce que département boo xam ne dañ leen fàtte ci lépp yaa ngi wax sànq ne amuñu hôpital de niveau 3 département boo xam ne c'est près de huit cent mille personnes c'est-à-dire que li ñu li taxal ñu manqué un million de personnes bariwul amuñu hôpital de niveau trois loolu moo war a nekk le combat pas ay guerre de position et cetera yoo xam ne amul solo mais département boobu noonu bi nga xam ne c'est près de un million de personnes bi ñu waree dem élection présidentielle pour dàq nguur saay-saay bi fi nekkoon. yaayu y a eu cent cinquante mille inscrits près de un million de personne daanaka boo ko xaajee par huit xaw ma par dix ñoom ñoo inscrire est-ce que loolu yoon la bu fekkee ne bëgg nañu changer c'est vrai que politique yi fi nekkoon yàgg di ñëw di leen nax mais encore une fois ñun nous sommes la preuve vivante que ne ñu di def politique politicienne parce que bu faree ñàkk la ñun ñoo ci jiitu bu fekkee dugal suñu xaalis la ñun ñoo ci jiitu. te ñëwuñu di leen wax loo xam ne gëmuñu ko walla loo xam ne duñ ko def donc il faut que nit yi engagé wu élection présidentielle sur les inscrits Pastef a eu 96 000 voix ou 93 ci des am près de 30 000 voix mais dama bëgg élection législative yi ñi nga xam ne jëliwuñu seen carte nañ ko dem jëli ñu mën a passer de quatre-vingt-treize mille voix à deux cent mille voix loolu moom moo ñuy assurer ñu am une majorité écrasante à l'Assemblée nationale ba Marie-Ange ak ñëpp ñi nga xam ne ay colistiers lañ ñoom ñooy dem assemblée nationale teewal Pastef bu ñu demee fëgg ci table bi ne département de Kër Massar dans les deux ans qui viennent il faut que mu am hôpital de niveau trois c'est-à-dire politique bi du sec. bu leen gis ni ñuy dem nii dafa am loo xam ne dafa am fu muy jaar li may wax ni moom bu ko demul xeex assemblée ak ay moroomam duñ ko am parce que encore une fois nous sommes la banlieue bi amul gëdd bi mu am parce que ñi nga xam ne dañu war a jóg pour xeexal banlieue bi xeexaluñu ko ñun bu ñu duggee ci politique loolu moo tax ñu def ko parce que mënoon nañ toog fu ñu toog encore une di tedd mënoon nañ toog fu ñu toog. jël sunu salaire bi ñuy tey boo xam ne multiplié wu na par cinq et encore une fois beaucoup de personne ont fait ce sacrifice là parce que gëm nañu ne ñun doomu dëkk bi ñoo war a defar dëkk bi parce que ñun ñoo xam les problématiques dëkk bi ki nga xam ne dafa yeewoo Almadi wala mu yeewoo fan Résidence lan la xam si Yëmbal lan la xam si Kër Massar xam na ne ñun amuñu ay tali yu bon amuñu hôpital de niveau 3 amuñu ay poste de santé yu baax amuñu école yoo baax amuñu école digne de ce salle de classe boo fi gis y a cent deux cent personnes par classe assainissement bi baaxul ndox bi sax baaxul et ça depuis ñun bu nekkee xale amul changement mais il faut moom changement changement boobu nag encore une fois doomu dëkk bi ñooy dem ne ah fii nii amul hôpital ñu mën ko xam parce que nit ñi nga xam ne dañu yàgg a gouverner ils sont tellement au perché ba xamuñu lan la dëkk bi di xamuñu sax am na ñoo xam ne boo leen waxee yëmbal dañ naan la fan mooy foofu. lu ma leen wax nii c'est une réalité donc engagement bi mi ngi commencé man en tant que citoyen ma dem defar sama carte engagement bi mi ngi commencé su ma defaree sama carte ba pare ma jël ko daas fanaanal ñun bi ñuy commencé politique bi ñuy tegal fii cellule Pastef yëmbal je disais aux gars que soxlawuñu ñu dem di woon ni nan la ñëw leen c'est-à-dire que amuñu comme li yenn sénégalais def c'est-à-dire que newuñu ci ngistal dañuy poser acte nit yi di ñu juger par rapport aux actes qu'on parce que fii ñëpp mën a wax ku nekk day wax rek di dem mais nit ki nañu lay juger ci acte yi ngay poser c'est important et ça encore une fois maa ngi ci woo jeunes yi l'avenir de ce pays là vous appartient l'avenir de ce pays vous appartient encore une fois bu ñu dawee ñëw fii yéen yéen a tax ñuy xeex donc il faut ngeen xam. prendre la plénitude en tout cas la mesure de votre engagement la et ngeen xam ne dëkk bi yéen yéen ko mën a defar c'est révolu époque bi nga xam ne politiciens dafay ñëw ñu topp ci ginnaam di daw loolu jeex na gis ngeen bañ ne ko bi président instauré les journées citoyennes amul samedi boo xam ne amul du mois te ñëw ñu fii ñëw ñu fii rek pour ñëw fii def set setal dañu ñëw pour ngeen gis pour ngeen gis ne si possible dañu ñëw waxtaan ak yéen pour ngeen xam ne suba président de la république mën a nekk ci yéen mais il faut ngeen gëm ko loolu dafa am ay préalable dafa am cheminement et cheminement boobu noonu encore une fois il faut ngeen jàng jàppale vraiment seen parents yi jàppale seen dëkk ak mag yi nga xam ne dañu war a jël seen carte encore une fois inscrire dañ ko def c'est important donc loolu mooy étape bi nga xam ne. loolu moo am solo ci fi nga xam ne foofu la jëm parce que encore une fois il ne s'agit pas de d'élire des députés pour élire des députés il s'agit de changer un pays il s'agit de changer un système yéen ñi fi nekk ñëpp man fi maire yu bari yàgg nañ ma woo di jooy ne ma Ousmane Sonko dañ ko tëj Bassirou Diomaye dañ ko tëj les ay doomu jàmbur yu ñu ñu rey te fii ku fi toog rek ñi nga xam ne rey nañu leen mënoon na nekk sa rakk wala ñu nekk sa doom wala ñu nekk sa jarbaat wala ñu nekk sa frère. mais est-ce que enjeu yi nga xam ne bokk na ci élection yi mooy que assassinat yi nga xam ne am na assassinat yooyu noonu mu bañ a nekk neen mbir mi dafa dépasser politique mbir mi c'est au-delà de la politique mbir mi c'est redresser un pays mbir mi c'est remettre un pays sur les rails mbir mi c'est que ñi nga xam ne dañu nekk victime de torture ñi nga xam ne dañu nekk dañ leen assassiné ñooñu ñu mën a recouvrer seen famille au moins mën a recouvrer seen dignité et faire le deuil ñi ngeen gis nag ñuy daw di campagne et cetera lépp pour éviter ku ñu bañ leen juger la loolu moo tax may wax ne élection yi ñu jëm dafa dépasser cadre politique ñi nga xam ne dañu rey ay doomu jàmbur ba pare voter une loi d'amnistie jàpp ne mën leen couvrir loolu il faut que ñun nga bokk Pastef ak nga ñàkk bokk Pastef da ko war a bañ il faut ñi nga xam ne ils ont fait du mal à ce pays que ñu il faut ñi nga xam ne dañu rey ay doomu jàmbur qu'on puisse les identifier ñu dem couvrir en prison ñi nga xam ne dañu jël alalu askan wi président Sonko génn na bërki dem wax ne compte mille milliards nit ñi daray seen bopp li ñu leen mën a wax mooy bu élection yi jàlle sénégalais dina dégg fii loo xam ne mosu ko dégg ci ay njuut njaaj ci ay luubal xam nga ñun dañu nekk ñoo xam ne mënoon nañ ñëw jël ay rajo dem si télé yi wax ne diw jël na fii un milliard jël na deux milliards jël na trois milliards mais ñun dañu bëgg nekk de légaliste c'est-à-dire que dinañ constater lu ñu constater à travers les audits jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a saytu muy la justice justice boobu def liggéeyam et bu ngeen gisee le président Diomaye Faye jël koo xam ne bokkul benn parti mu jël ko teg ko ministre de la justice c'est pas pour rien pour que demain ñi nga xam ne dañu sàcc alalu askan bi et je sais dañu sàcc ba doyal nit yi dañuy jël milliards comme ni ñu jëlee téeméer loolu moo am ci dëkk bi ñooñu nag il faut encore une fois bu Pastef wala Kër Massar amul hôpital de niveau 3 wala Pastef wala Kër Massar di taa wala yëmbal amul ay cas xaalis boobu ñu sàcc luubal ko moo tax mu lu am mais ñooñu duñ leen bàyyi ñu ne mu passé par perte et profit ñooñu il faut ñu traduire leen ñun dañu bëgg politique boo xam ne amul Pastef amul Ousmane Sonko amul Aliou Sall cest dire xalalu askan al xaalisu askan wi askan wi moo ko moom képp ku ko jël ak foo mënti bokk nga bokk Pastef wala nga ñàkk bokk Pastef yoon dal sa kaw lii dafa bokk ci enjeu élection yi c'est hyper important am na ko doon wax sànq nañ leen may ñaari député amul sax bu leen may zéro député même bu fekkee du may wax ni c'est c'est compliqué parce que loi d'amnistie bi encore une fois il faut que ñu am majorité écrasante pour mën ko voter pour lii ma fi lim nii ku ci nekk mën a payer à la hauteur yi nga xam ne moom nga commettre et loolu c'est important loolu c'est un devoir de mémoire gis nga su ñu ko deful sax ñun bu ñu deewee dañ ko léegi yàlla parce que ay doomu jàmbur dañu dee ngir loolu Nous sommes obligés d'aller au bout de ça. Nous sommes obligés. Pour que mémoire, pour que ñu mën a reposer en paix, nous sommes obligés de faire ça. Et loolu encore une fois, jeune ne pense pas que Yembel ou département de kër dinañu seetaan Kermassar, nous sommes que nous sommes ndontoon démb ñi nga xam ne dañu doon saaga démb ñi nga xam ne dañu doon rey démb ñi nga xam ne dañu sàcc suñu xaalis démb ñu leen di may une possibilité di am ay député fii di continuer di ñu narguer fi leen président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye bëgg a yóbbu nag fu leer la foofu lay daanele agenda de transformation gis ngeen ko jarul lu may ñëw ci détails yi dañu nekk dëkk boo xam ne amul dëkk bu ko gën a riche ci àdduna et ñun ñoo bokk ci ñu gën a pauvre ci àdduna dañuy wax souvent Sénégal n'est pas pauvre mais il est appauvri appauvrissement boobu nag bokk na ci li ma lim lii nii mooy ay njiit yu bon nit yoo xam ne bëgguñu seen dëkk nit ñoo xam ne soo demee Paris ils ont des appartements yoo xam ne parisiens yi fa dëkk sax amuñu capacité pour pouvoir de loolu lépp suñu xaas lañu jël ñu def ko agent de la transformation lu mu bëgg mooy le Sénégal mu moom boppam ak ay doomu réewam liggéey ko ba encore fois képp koo xam ne yaa ngi yewoo ci dëkk bi nga mën a bénéficier des ressources yi nga xam ne dëkk bi ñoo koy produire et loolu c'est tout à fait possible encore fois nous sommes pour vous parler de la politique politicienne li ñu leen wax dañ ko gëm bu ngeen xoolee ci gouvernement bi xool les directeurs ñu ci bari encore une fois nekkoon nañ foo xam ne tey bu fekkoon ne xaalis kese la. wala salaire kese la du ñu ñëw ci dëkk bi di sol li ci am solo nag mooy encore une la mobilisation mobilisation bi il faut que ñu continuer ko bàyyi xiiro bi bàyyi ŋaayoo bi parce que li doy waar ci parti pouvoir bu ñu ñëwee rek ku nekk da ngay bëgg am ne man maa moom base yëmbal man maa moom sud man maa moom Kër Massar et cetera parti bi nga xam ne moom la sénégalais yi jéppi ba jëlee leen fii loolu rek moom leen tas parce que ku nekk yaa ngi xëcc sa bopp. maa moom fii maa moom fii et cetera di am ay clan ba ci ministères yi sax des ministres yoo xam ne amuñu benn emprise seen directeur mënuñu def benn résultat parce que politique politicienne bis bu ñu dof dofloo nag ba dugg ci politique boobu noonu non seulement Sénégal dinañu jëpp et dëkk bi dina fi jaaree suux ba faaw parce que espoir bi nga xam ne moom la jeunesse bi am ci président de la république am ko ci président Ousmane Sonko am ko ci Pastef bis bu ñu dofee ba trahir cet espoir là mooy sa dëkk bi nañ ko jaay ku nekk jël sa paas nga dem feneen te xam ne mënuñu am dëkk boo xam ne baax na loolu laa leen bëggoon na wax encore une fois di leen remercier ci mobilisation bi di di leen remercier vraiment ci mobilisation bi di euh, di euh, Pape Modou Gueye Pape Modou Gueye Mourid ah waaw ñu ngi remercier bu baax Pape Modou Gueye di remercier Mourid Gueye bale la sa famille di remercier ñëpp rek ñi nga xam ne ñëw nañu encore in fois di remercier sama famille biologique parce que maire yi fi toog ñi yëpp bi ñu nekkee xale doon jàng ñoom ñoo ñu jox paas di ñu tette di ñu gunge maa ngi leen di nuyu bu baax kontaan naa vraiment leen. organisateur kontaan naa lu bari bari bari bari. organisateurs yi. ajuma GPS. les médias l' ensemble des médias. remercier vraiment amul solo mais encore une fois du ñu ay ministres yoo xam ne wala ay politiciens yoo xam ne dañuy gëj fi ñu jógee dinañ fi ñëw di waxtaan ak yéen. di leen jéem gunge ci lépp loo xam ne nekk na suñu loxo ñu mën ko saafara wala gouvernement mën na ko saafara incha allah dinañ ci taxaw pour que yëmbal le département de Kër masaar bokk ci département yi nga xam ne ñoom dañuy gën a ràññee dans ce pays là jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup